mooy 2018 2014 ba 2021 gis nga li xew 2021 d'accord ngeen yéen ñëpp ne askan wi ñoo jógal seen bopp n'est-ce pas président Ousmane ko woote jàmm ne bu leen ko déloger. bu leen ko déloger. bu leen ko déloger en démocratie on ne dit pas ces choses-là. non le 8 mars bàyyi leen ko mu ah. yeggali mandaam bu leen dem pale parce que ñi ngi doon dem pale yow xam nga ko yow dund nga loolu 2012. bi ñu ñi doon wax naan palais palais palais Ablaye Wade ba av euh, euh, juste avant ñuy retirer kii bi projet de loi bi xam nga ne une foule immense kenn mënu koo téye yow xam nga ko. personne yow xam nga ne période boobu xam nga ñu bëree bari ñoo xamante ne ni génn nañu Ndakaaru donc su dee réew mi àndaatoon naa dal yàlla. jaarale na ko ci président Ousmane Sonko ak sëñ Mountakha bi nga xam ne ñaan nañu maye dama bëgg nga ñëw beneen affaire bi am solo beneen affaire bi am solo dama bëgg nga ñëw ci li ngay woowee changement de stratégie dans le combat non dama la bëgg a wax ni c'est c'est quoi c'est quels sont les contours de ce changement de stratégie c'est question de changement gis nga ñun Pastef mësuñu fi ñëw pour ne on prend par exemple le pouvoir par la force et cetera ñun élection la ñu bëgg nañu du ngeen fi wax seen programme du ngeen fi dérouler seen programme du ngeen dem élection cool yëpp loolu kese la de parce que ñun dañu ne ñëpp a war a bokk ku mën sa morom duma parce que wóolu nañ suñu bopp am nañu suñu candidat le président Ousmane Sonko seul et unique candidat am nañu suñu programme am nañu suñu euh, euh, appareil électoral am na nañu suñu ay militants xam na ne bu ñu ëppul doole ci réew mi kenn ëpp ñu fi doole loolu la yàlla dogal te dañ koo liggéey askan wi jox ñu boppam kon lenn kese la ñuy laaj des élections libre et transparentes inclusives ñu bañ a sélectionné kan ak kanay bokk bàyyi askan wi mu tànnal boppam kan ak kan la bu fekkente ne sax dañ ci gis ab sàcc gis ci ab raykatu nit gis ci keneen ak keneen askan wi mooy choisir ndax sàcc ba lay jël